te yéen ñëpp yéen a bokk ku leen jox seen teraanga kon waratu leen a mën a xëccoo lenn lu dul fexe ba kenn ku nekk yokkuwaat ci teraanga léegi su ko defee su ko defee ma bëgg monsieur le nga yiir ko nga yiir uuf ko jàppale ka waaye moom it mu nangu mu yiir te jàppale ka te xam ne yéen a bokk son excellence du président Macky Sall kon loolu mooy sama bés tey jii fii ñu daje nii honorable député yi fi nekk yëpp man rek maa ci di góor kon bu ngeen ko gisee am na lu sax ndax fi ñu jëm si sama maire moo fa nekk ki ñu àndal di ñëw sama dëkk kon honorable Fall ñu delluwaat nag bokk lu nu mën a séddoo ndax moo bokk Serigne Touba suñu bokkee Serigne ba pare nag mën nu séddoo am na droit di def leneen loo xamante ni dañuy génn ci Serigne Touba man am naa yéene ci digg Touba du ji ngeen yokkoo yàlla may leen fi ndam ñu gën a kawe ndax bu ngeen àndee ab opposant du fi am keneen ku fi mën a créer son excellence Macky Sall amu fi ànd leen ngeen bokk ndey bokk baay man sama kàddu foofu rek laa te jëmale jëmale ko fenn te am naa ci yéen yaakaar am ci yéen jafe am ci yéen yëg mu wóor ma ne lii may wax daa ngeen ko def lii moo mën a doxal Touba bi non yaa dafay jël bu ngeen divisé woo dafay jël micro yéen après mu ko def bi ñuy nuyoo bi ñuy nuyoo comme ni ma kaasal micro baa ngi waa dem ci collectif des départements maire des départements de Thiès di kaasal dem au conseil di kaas kon li ngeen bëgg Touba Tour bi yàlla defal na leen ko sàmm leen ko asalaamaaleykum